نجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى نويت ما ba agsi fii ñun ndaw ñi bi ñu yàlla suñu borom wërsëgul ku si néew noonu ko investir fii ci dëkk billaahi wal kitaab bu ñu investiree mu dem nañ investir fii ci dëkk bi ana naka la ñuy investir c'est parce que ne man bi ñu waaj année mbaaxe 2020 bi te année yu bëree bëri ma waaj am ñoo ma ciy jàppale année bii nii ma xool fond de caisse ma ci dara te ñi ma ciy daan jàppale ru kenn ku ci ne ci ñoom rus naa laal fëgg naan la ñëwal waaj le ma ma dem mbaaxe ma daal di wax ci li nga xam ne moom la ñuy waxeente ci suñu biir kenn ku nekk di dégg sa morom te doo ko gis da ci fekkoon woon ne Serigne Touba def na ci dara ndax suñu moom xumaag la ko fekkoon ba mu ko joxee ñaan ga kenn ku nekk yégg na histoire bi nga xam ne dina ko séyee ci barab na barab ya def nga xam ne booba Serigne Touba namm na ci ñun ak texee te leer ne ko ni ñi bokk ci mbaaxe am nañu jiitu jëmmam jë mu joxe su sañu suy ko ci barab yi jëmm yooyee texee ñun ñu topp ci ginnaaw Serigne Touba di koy liggéeyal daal di texe Touba ca kanam la ci ay jigéen lañ tey buñ xoolee actuellement fii ci tànt bi li ci ëpp ay jigéen lañ kon est jotul jot na sëkk kenn ku ci nekk ci ñun chaque fin du mois muy góor di jigéen mu génn ñaat téeméer dërëm pour mbaax ni ñu koy defee nag mooy jigéen ñi chaque fin ya yaa nga naan ñu ngi seen ay kuréelu bopp ndax Touba mbootaay yu ci baree bari léegi dañ koo soppi dugal ko ci Touba ci kanam te it loolu maanaam toog na yàgg defaru ko pas-pas moo koy defar buñ amoon pas-pas am gëm-gëm bu doy ne loolu doon ko fay war a def billaahi wal kitaab bi bala ñu desiwaat ci at mi ku toll ko suñu bàcc xëri nii bu dee guddi laa wax de da nga gis ka nekk kër Serigne El Hadj ndax gis nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def ay nit la comme ñun te dañoo am pas-pas gëm na war nañ ko maa a def ñu daan koy def dafa jot sëkk ñu gëm nañu mbaaxe dafa war a dépasser si fi mu toll actuellement nii te mooy li nga xam ne moom mooy dugg ci yi li koy defar mooy li nga xam ne moom crédit bi ñu jënd def ko ci téléphone yi pour si ñaar téeméeri dërëm ko daggalee ñaar pour si ñaar téeméeri dërëm ña nekk Touba def noonu ña nekk Dakar def noonu ña nekk états def noonu kon gëm naa ne dëkk bi dana mel na ni kon ku am xel ku nekk rek war ngaa mën a lamb sa poos yëkkati ñaar téeméer dërëm sax fenn mois ba keroog liggéey bay ak tey soxna yi laa ci gën a soññ ndax jigéen yàgg naa doon jàmbaar jigéen mooy ki nga xam ne moom la deretam njëkk tuuru ci lislaam kon jigéen kenn mënut leen bàyyi ko liggéey ko Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne am na jëmm yu ko nasër bokkoo liggéey jëmm yooyu buñ leen ko bàyyee ndax gënuñu ñoo bëgg lu baax muñ leen ci seetaan nañ làmb nañ làmb lañu am lañu man lépp ak li ñu ñu def ko ci ndax man wax naa bàyyi xaaj ne naa gis nga bu leen tegee xeer bi teg ciment bi teg suuf si am na jëmm yu ne ci liggéey ko te ci fayee ko benn dërëm kon jëmm nañ leen bàyyi xel bëpp kuréel ku ne ci dëkk bi te mën a mobiliser wu mën leen cee jàppale nga jàppale leen ci te xam ne loola lu sotti la ba noppi xëy na fa ñi daaneel sun fa te waroon koo jiital ci liggéey bi mooy nuyu sëriñ Mbacke Xari baax suñu borom ñaanal ko suñu borom guddal daal ñu ko jottali ak mboolem ku ne ci dëkk bi di santaat bu baax a baax ndaw ñi nga xam ne fekk nañu ci accueil bi nga xam ne ak yi nañu ko ak teeru bi nga xam ne teeru nañu ko ak teeru lool tey dañu ñaan lu mel noonu buñ ko yamalee ci samedi bii rek nañu ko continuer di gën di déggante bu ko jaree sax ñu taxawal benn groupe boo xam ne si ne groupe bi dañ koy duppee liggéey mbaaxee wala ñu duppee ko groupe bi leeral mbaaxee mboolem ku ne ca groupe ba chaque fin bu nekk rek ñu am luñ la laaj la cay génne duñu ko def ci benn poos duñ ko def ci benn kees dañ ko jënd matériel boo xam ne si ne dana mën a jariñ baax ndax matériel Moustapha ji du ko lekk Mor Diop du ko lekk bu ñu taxawee benn groupe boo xam si ne liggéey mbaaxee la groupe yi tudd wut ay carte membre boo leen ko dugg ci groupe ba jënd carte membre carte membre mi condition yi yee nekk moo di fin de bu nekk rek ku ne ci groupe bi kenn ku ne rek war ngaa joxe ñaar téeméeri rëbb bu ko defee loola ñu jënde ko

kon di santaat bu baax a baax a baax ndaw ñi comme ni mu ko waxee woon di teg ci loxol am jot ñi nga xam ne réerawuñ benn yoon ci li nga xam ne ñi ngi koy liggéey ñun ñi nga xam ne ñi ngi Touba ngi koy liggéey Touba ndax damay naan ñoom du ñoo bëgg lu baax ndax dañoo gis ñu créer mbaaxee groupe WhatsApp gis ñu créer Touba groupe WhatsApp da di ay jëmm yoo xam si dañ wax naan mboolem lu mboolem lu ñuy def tuddee ko mbaaxee te mooy luy liggéeyal mbaaxee dañ ci dugal seen loxo kon jëmm yooyu tamit ñu leen ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant bu baax mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci euh, boobu ba léegi di waaj bis bi suñ boroom defal ñu tawfeex ñu daal di agsi ci bis bi kon ñooñu ñu ngi leen ciy jaajëfalaat baax a baax ñun Touba moom li ñu fas yéene mooy màggalu mbaax saa yu amatee mboolem kuy déparé Kër Baay Jabel danañ fexe ba indi la te doo fay danañ fexe ba delloo te doo fay lekk ak naan moom yàpp naa ne kenn ku nekk rek da nga def fii te doo làmb kon suñu xol sedd na lool am nañ mbégte lool di ñaan suñu borom dafa ñu tawféex ba liggéey bi nga xam ne moom la jëm yi liggéey te yaak jëm yi nga xam ne moom lañ na sër pour liggéey ko sëriñ bi yaakaaruñ ci kenn ku dul ñun ndaw yi kon duma ko def te awma ci ndigal mais suñ ci amee ndigal nanu créer groupe bu mel noonu liggéey mbaaxe wala leeral mbaaxe buñ ko créer kenn ku nekk di ca làmb sa bos di ca def boo amee loo xam ne si nag sama maam na la ko te nga mën liggéey nan ci liggéey nanu liggéey ci dëkk bi bu ci liggéey dana jógee fii mu nekk nii te bu ñu calculer mbaaxe ak Dakar ñu méngoo ay at kon actuellement mbaaxe ñun jeunes yi ñoo ko mën a jëlee mu nekk loolu incha allah rabbi bu ko kilifa yi dogalee des na ko taxawal muy groupe boo xam ne si ne mboolem ku nekk ci dëkk bi dana ci dugal dana ci dugal numéro te numéro boobu saa yu weer jotee danañ ko ci laaj ñaar dërëm. loolu suñ ko xaymaa ci ci ci ci biir weer wi rek fa liggéey ba toll ñu jënd ko bu dee ciment la bu dee fer la bu dee xeer la di jay defalaat mboolem koo xam si ne yaa ngi ci baas bi di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex bañ fekki waat ko ay déwén déwén ci daraja Serigne Touba Khadim Moustapha di jéggalu nag ci kàddu yi bu baax a baax a baax a baax ndax xam naa ne suñu ay kilifa ñu ngi ci ginnaaw ñoom ñoo waroon yëkkati kàddu yi sax comme kàddu yi day di mun ñu ko ñàkk yëkkati euh, moo tax ñu daal di koy jël waaye am nañ suñu kilifa yu ko mënoon a jël wañi santa bu baax di amane mbekté bu baax baax ci organisation 2020 bi sa internet bi dama ne lu am solo la c'est parce que ne tey am na jëmm yoo xam bu nu dikkee tey bu nu tàppee site internet bi rek actuellement danañ xam liggéeyu Mbacké fan la tolloon te yaakaar naa c'est la première fois site internet ñëw couvrir événement bu Mbacké bi denc ko fo xamné ci ne fi ba ay ati ati ati at mbolim ko xamné ci ne rek soxna soxlati nga année 2020 bo tapé mbaxé 2020 ci ci site internet bi da nga ko mën a am am ci image bi jàll lépp kon euh, innovation bi nga xam ne am na ci euh, am nañ ci mekk bu baax a baax am ci contentement bu rëy rëy di ñaan di di di ñaan suñu borom gën ñoo defal tawféex ci li nga xam ne moom lañ dëgg bëgg dëkk bëgg ci dëkk bi suñu borom defuñu tawféex ba ñu réussir ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. sunnatu fada wa ilmi amadu